وقدره المقدار العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر بتعطيل نظرة الفاتحة إلى مضمر بعد عمد الخيرات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، نجنيو جتائب تد بي ci barab bu tedd ñu sos ko ngir ziyaare wàllu yu ci wàllu yàlla yi muy cheikh alxaaj Mouhamed Zeynab te góor ñi dañoo wax ne man sabatat wilaayatuhu wajabat xidmatuhu ku sa wilaaya sax rek sa xidma war nañ laa xidma ñu ngi nuyu suñu nijaay Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy borom jotaay bi buñ ko nuyoo nuyu nañ ay rakkam yi suñu nijaay yëpp Cheikh Tidiane mi fi jugee léegi suñu nijaay Cheikh Seydil Arabi suñu nijaay Cheikh Ibrahim waaye di nuyu Cheikh Mouhamad Khalifa. Cheikh Ibrahim radiallahu anhu teewaayam bi bu teewee utu na ñi daan teew yépp te teewuñ di nuyu cheikh alxaaj Mohamed Zeynab cheikh Ibrahim alxaaji Ousmane ak seeni doom ak seeni rakk waaye di nuyu Papa Demba bi tey bi nga xam ne agsi na léegi lii cheikh Bachir wax ci moom kenn du ko paase liggéeykat la pour Sénégal yëpp liggéeykat nag foo dem rek dañuy foog ne yow ñoom ngay liggéeyal waaye pay bi te kontaan am doom ju mel ni moom mu taxaw ci gouvernement Sénégal di liggéey liggéey boo xam ne bu fekkoon ne Medina dañ koo gërëm léegi ñeneen ñi gërëm gërëmuñ ko boobaa danañ am jaaxle ci loolu waaye Sénégal la buy liggéeyal Sénégal confiance bi nga xam ne moom la président am ci moom ba jox ko liggéey bi mu taxaw ci taxawaay bi ci war a taxaw xam nañ ci lu bëri loo xam ne lépp dafay dellu rek ci njëriñal Sénégal kon ñaanal ko ñaanal Sénégal la buñ koy ñaanal it mooy ñaanal ay kilifaam. ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm comme ni cheikh bachir wax ndax bu taxutoon ak jàmm gi duñ mën a def jotaay yi ñuy def di nuyu euh, baba ndiaye nga xam ne mu ngi ñëw léegi kon président conseil cons euh, waaye di nuyu suñu rak oustaz cheikh ahmed di ko gërëm ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne moom la am ci jàng ak jàngale ak gëstu ci conférence bi mu fi def ci dundu Cheikh Alxaaj Mouhamed Zeynab nga xam ne lépp daf koo teg ci ay gëstu yoo xam ne sukkandikuwaay yu dëgër buy ci kër maam Alxaaj la aju buy ci tariqa bi la aju buy ci biti la aju loolu ku nekk xam na ne jafe jamono fi ne nii ak xat-xataayu jamono ak bëri bëri soxla yi kuñ def loo euh, conférence nga def ko ci shaxsiya bu mel ni Cheikh Alhaaj Mouhamed Zeynabu nga xam ne moom ci boppam bind na lu bari loo xam ne dellu ci nit kuy gëstu mën nga cee defee conférence li mu wax euh, sànq ne docteur Ousmane Dia wax na ko ci téeréem boobu wax ne ñu mel ni professeur Amadou sàmm nga xam ne dañoo bindoon ci ëdëbal arabi sénégal yi bàyyi boroom xam-xam ëdib bu mel ni Cheikh Alhaaj Mouhamed Zeynabu taarix du ko jéggale an kay taarix dana ko jéggale ndax ñoom ñoo euh, xacc yoon woowu ba ku ñëw mën a gis ne am na lu manqué ndax doomi aadama du matal waaye dafa bëggoon a wax rek ne dëgg-dëgg kenn warta jàng adab ëdëbal arabi ci Sénégal fi mu toll bàyyi borom xam-xam qaama ilmiya ëdëbiya bu mel ni Cheikh Alxaaji Mouhamad Zeyni nga xam ne moom doy na misaal pour wane madrasat Alxaaji Abdullahi fan la toll ci xam-xam ba borom xam-xam Mauritanie yi nga xam ne ku nekk xam na ni leen yàlla maye ci luxal arabiya ñu ci bëri dañ daan ñëw kër alxaaj Abdullahi waaye dañ leen daan tudd alxaaj Mouhamad Zeynab mu ne leen am na ku fa nekk nag koo xam ne moom nii la mel naa la mel waaye kuy wax arab ci kanamam di bind ay bayti ci kanamam na nga bàyyi sa xel ci moom ndax moom imru xay si sax bu bindee xasida ci moom am na lum ci Euh, wax li Seydi Cheikh Bichir wax ne imaam Cheikh Tidiane moo ne bàyyi baax na waaye alaaji it baax na ndax baax baax rek baax baax rek la ndax benn madrasa la bi nga xam ne mooy madrasa alxaaj Abdullahi waaye la wax noonu sëriñ Moussa Ka daf koo wax ba muy tagg bàyyi ba ak si jaaraaj mos ne bu daf ne taxaw naa waaju baax taalibe si Ahmadou Bamba la te xawlu naa waaju baax day mel ni Ahmadou Zey magam janaan sama mbir jox naa ko barxam koo xam ne balaa juddu bala ngaa juddu fekk na ba fekk na moom mu tari alquran fekk géeju ci xam-xam mu nangul la loolu rek doy na dayooy baax mu ne lahu fadailu laa tuxsa bi kaaxidatin réyul xañaandu te am xam-xam ne barxam amna ay ngeenel yo xamne mu ne kenn mënu ko bind sax ci këyit waye reuy añaanu ta am xam-xam ni barhama kon ay borom xam-xam ño wax lolu borom xam-xam ño wax ay mbaxam melal yi nga xamne mom la cheikh ahmed bukaram koy wax baye di melal seydi ali seydi ali di melal baye ci kaashif al albaas bàyyi bind na alxaaj Mouhamed Zeynabu ay lettre yoo xam ne loolu la koy adressé cheikh bi jami maratib yi nga xam ne sëriñ la ci mboolem martaba bu ñuy doxee sëriñ ndax am na ku jàng alquran ba wattu ko jàng alquran ba xam firéem jàng arab ba xam ko jàng xadis ba xam ko jàng fikk ba xam ko foofu la em waaye am na koo xam ne passé na loolu fexe na ba fii ci géej gi nga xam ne ci la góor yàlla yi di fay ba bàyyi waxoon xaaj Mouhamed Zeynabu ne ko sa dolleeku ci yàlla fi kulli nafasin daruriyin indi li annaka mazharu min mazahiri alxatmi tijaani sa dox bi ngay dox ci yàlla ngay dolleeku ci gendeeku bu nekk bàyyi ne ko loolu maanaam lu mënta ñàkk la pour man parce que yow feeñuwaay nga ci feeñuwaayu Cheikh Ahmed Tidiane kon kooku lañ doon dajee tey pour ziyaare ko ñi ngi yàlla baax nañu ñun duur ne dañoo ñëw kër yor rek door a door a tey jii ba muy ziare bàyyi man ziare naa ko waaye dañuy ñëw kër yor pour dëggal loolu dëggal li nga xam ne moom lañuy dund ndax xol yi ku nekk mën ngaa toog rek ne soo mbokk di eene naa ko nangam doomam yii nag mu bàyyi fii yàlla def ñuy suñuy nijaay ñu suñuy ay mbokk di doomi bàyyi di ay yaram ñu nekk ci pay bi nga xam ne lépp lu baax lu nit ñi nekk dëgg-dëgg ñu ngi ci nekk ak nit ñi bu fekkutoon ne dañuy dajee pour ziyaare wàllu yàlla bu mel nii moom sax ñoom ñii buñ ootee kër yoro nit ñi war nañ leen fekk si ndax luñ lu nit ñi oote ñu fekk si leen ci ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla gën leen a sàmm yàlla wattu leen wattu seeni njaboot barkeel njaboot gi ba nga xam ne lii Seydi Haaj Muhammad bu ñaanoon barke boobu dana feeñ ci ñëpp feeñ ci njaboot gi feeñ ci ñun ñii ñëpp ñi ngi sant yàlla mi nga xamee ne ñi ngi koy teewal di ku ziyaare tey laahi tabaraka wa taala xam ne liggéeyal nañu xam-xam liggéeyal nañ lislaam liggéeyal nañ tariqa tijaaniya liggéeyal nañ seen waajur bi nga xam ne alxaaji abdullahi nga xam ne bàyyi neewoon na lépp luñ nekk ci lu baax rek ci mbaaxam yi la alxaaji muhammad zeynabu miitim kenn